Serigne Modou Niang di njiital mu Niang production ñu ràññoon ko lool ci wàllum euh, bëree ndax ay làmb yu mu doon euh, tëgg moom nag euh, moom moo génn àdduna ñu ne bésu ba tey bi gannaaw bi nga xam ne nag ñu ne dafa feebaroon moom nag gëj na sax feeñ kon gëj nañ ka gis moom moom leen di homme d'affaires boobu nga xam ne kon ay mbër yu bëri moom mooy leen feeñal ci ay combat yoo xam ne kon da ko doon tëgg ñu ñaan yàlla xare ko àjjana Aminata Touré gannaaw bi ñu ko dàqee assemblée nationale fi mu nekk nii nag mu ne dina wéyal xeex bi nga xam ne mu ngi koy euh, xeex kon nag xeex boobu du ca wéet ndax sax jeune leader politique bi ñuy wax Amadou Carter Diop moom nag euh, dem na seeti ko sax nee na dina ko euh, jàppale ñoom ñaar sax dañoo fas yéene kon boole seeni doole muy Mimi 24 ak doxal Sénégal bi nga xam ne kon Amadou Carter Diop moom la jiite ñu boole seeni doole kon ngir nag jëm ci présidentielle bu 2024 ci ab coalition. am na lu bees ci mbirum Sitor Ndour mi nga xam ne nag euh, dañ koy jiiñ wàllum viol ba sax teg ko ci loxo ñu ne nag euh, moom mi fi nekkoon euh, directeur général bu COUD nekk nag responsable bu APR te ñu nag yóbbu woon ko kasu ci mbir moomu fi mu nekk nii nag ñu ne mbir mi dañ koy yóbbu ca chambre criminelle pour atte ko fa. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Tunisie foofu nag euh, ëllëg ci dimanche ji ñu ngi xaar euh, lu toll ci huit millions wala boog lu ko jege ci ay tunisiens ñu dem ca euh, urne ngir nag wooteeg député yi muy élection législative kon yi nga xam ne dinañ ko fa amal gannaaw bi nga xamee ne sax boobule assemblée nationale ay dooleem daal wàññeeku woon na. Euh, gannaaw nag euh, ab réforme euh, de la constitution boo xam ne eh, ka fa nekk njiitu réew di Kais Saïed moom moo ko fa amaloon ci weeru juillet bi ñu génn. lu toll ci fukki nit eh, ñoo ñàkk seen eh, bakkan eh, jeudi si ab at muy ñaari attaque yoo xam ne dañ koo amal ñuy njort ne ay terroriste kon ñoom ñoo ko amal fële ca centre ouest bu Burkina Faso diggam ak Wagadugu toll ci cent quarante kilomètres bu ñu sukkandikoo nag ci ab koo xam ne fële dëkk nee na nag attaques yi benn bi mu ngi amee ci dëkk bu ñuy wax Do nekk ci commune bu Dassa beneen ba amee fu ñu naan Bachoukourampoune xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg euh, wala book benn ponk sax lay doon muy nag euh, diggante Israël ak Palestine nag euh, xeexoo ya ak reyante ya tàmbali waat na ñu ne ba suba tey bi nag ñaari nit ñoom la ñu gaañ ñu ne sax te balu fetal moo leen gaañ ci ab attaque boo xam ne kon mu ngi am ca Jérusalem lu ko jiitu nag amoon na lu ni mel. ba sax lu toll juróom-ñaari nit ñàkk seen bakkan kon ca ab wëtu benn synagogue loolu nag mu ngi am si jamono joo xam ne sax kon ñii di armée israélien ñoom ñoo amaloon euh, benn euh, opération kon bi ñu doon amal te ci doon euh, tiré fële ca fa ñuy wax Jenin kon ba jotoon ci rey lu toll ci neuf palestiniens euh, kon ci ginnaaw ga nag kon la yooyu la attaque am ñu njort nag ne kon euh, lii dina tax ba xeexoo yàgg reyante tey euh, seen biir dina commencé ti xibaaru sport lañ koy jeexale équipe nationale bu Sénégal nag démb moo dóoru Mauritanie benn bal ci dara ci li nga xam ne nag moom mooy quart de finale bu championnat d'Afrique des Nations loolu nag tax kon ba ñu qualifié ci demi-finale yi eh, suñu gaynde locaux yi nag kon war a dajeek eh, ki nga xam ne eh, moom mooy gagné ci diggante Madagascar ak Mozambique. Bamba Dieng nag transfert am mu fële ci Lorient officialisé nañ ko ba suba démb ba sax présenté ko li nga xam ne moom mooy publicu boobule club bu Ligue 1 ca France moom nag Bamba Dieng ñu ngi ko transféré lu toll ci huit millions d'euros. ak bonus mu bàyyeekoo ca Marseille li ni lañu nemmeeku itam ci faamara jeeju moom nag jóge na ci club ba mu nekkoon ca Turquie dem fa nga xam ne kon moom mooy Espagne moom nag engagé wu na ak club bii di Granada nekk ci D2 foofale ca Espagne démb sax kon lañ ko doon présenté ñi nga xam ne ñoom ñooy journaliste yi li ñu tey ci xibaar bu seen teewlu di leen jox daje altine jaa ngeen